waaw gars yi maa leen ziar comme ni ma leen ko waxee ci vidéo bee rek ah, bu ñu tontu kenn parce que euh, tuuma yàgg na ci àdduna yéen samay sopp yéen laay waxal dem nañ ci gàllaaj jéem nañ jéem a kort ñëw nañ sama buntu kort sànni ay gàllaaj façon bu ne def nañ ko munuñ sorti ñu naan xaar ñu dem tuumaal ko nag léegi tuumaal bu gën a salte ne ko nag ci biir bureau nag mu ngi fee def lu salte waaye yàlla xam na billahi lazi laa ilaha illa huwa barki cheikhu tidiane chérif barki yonent yàlla muhammad yàlla xam ne yàlla dina ma ñoom kon bu ci kenn tontu nañ bàyyi ci loxo yàlla subhanahu wa taala xam nga laatal fi def social dimbale jaamu yàlla yi waaye du ma tontu noonu du ma kenn nekk sa machine bind neex def lu ñaaw man mi yàlla teral nag man yow mi am man du am damay xàppi ko ñëpp dundul leen leen samay waxal on peut pas arrêter la mer avec ses bras suba di ngeen gën a sonn leen jaaxal wala style leen jaaxal wala leneen jaaxal di ngeen gën a man j'avance je fonce liggéey rek